السلام عليكم سما جاي دلنا جامو كي سب فاروق تفي نقول إن يان جن أبني هو بلن فاتي بس كل سو نوتيفيكاسيون بي جن جن من جد بيب فيديو ما خي دينك دوجل في تبير يومي أكبيتم ريم دين جن جن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والنبيين وعلى آله وصحبه والمؤمنين آمين gannaaw bi ñu leen nuyoo yéen ñii di suivre seen seen bii di soppi Farokh TV del ci waat nañ ci kat mu yàlla comme nañ ko daan defee waxoon nañ ne ñoo ngi woon ci jigéen bi nga xam ne nii moo ngi ci néegu sëyam waaye bëgg am ngërëmul borom këram yoon wan lay jaar si ak nangu ak woyof hmm, dégg nga de ah, kon <coughs> dellusiwaat nañ ci loolu waxoon nañ ne bokk na ca isa taaxara sawjuha fi rujuhi ila albayti tasxara sawqaha ilayhi wala tashillu tuatibuhu ala taaqurihi waaw euh, foofu la yemoon kon ñu continuer rek euh, bokk na ca ni mu war a melokaanoo ci biir néegu sëy mooy mun nangul ko ci lépp dasaa bokk yi sa daqalal bayt tarakat kulla ahmaliha wa axbalat ilayhi wa alayhi summa in baqiya alayha xamad istasanat minhu wa akmalathu aw summa akmalathu bokk na sa saa bu borom këram ñëkkee ci biir kër gi wala biir néeg wa su fekkoon da fekkoon ci ay liggéey yu mu nekkoon dégg nga de na bàyyi lépp daa di ci moom daari jubbi ci moom bàyyi lam nekkoon waaye te borom kër génn ba dellu ci nga nekk si loo xam ne lu mën nañu wax ne lu ñàkk fayda la sax dama bu nekkoon lu am njëriñ sax su waa waras nga koo bàyyi dem xool nan la dikkee na ba nga nekké ci lo xamni lo ñak ndëriñ la su ba lolu jarna di baye xel fekke da nga won liggéey dem liggéey ba dess na bala nga ba delluwaat sax nang ko ñaan ndigal bu la nga dem yeggali liggéey ba bu la wut nga tok rek wéy ci ndigalam بكون جي توقن بأن سر سعادتها في الدنيا وأخراها في سلاسة الأمور تقواها لربها وطاعتها لزوجها في خير ماشية وحرصها على إسهاله بكون na مو mu secret la pour yoon wi jaar ba taxé ci aduna ak ci alakhirah mën nañ ko tënk ci ñetti mbir moy ragal gi ñuy ragal suñu borom tabaaraka wa taala mu ragal yalla bu lepp lo xamne yalla santane nako rek mu taxawu sa ba mat sekk al top borom si ay bëgg-bëggam ndem wuute wut bagu bëgg-bëgg suñu borom moy ci lu do ben moy si misal damay julli nga ne ko bul julli damay wor ko far nga ne ko bul woor dégg de yooyu bu ci and ak mom ay yidu yoy rek su boobaa mën nga ci dëppoo ak mom ta nga xir nak si def lepp lo xamne rek day maye ak ngeureum ci mom yoy ko ci mom waaw jóge ko ci moom ndax cër la bu ko yàlla jox koo xam ne dénk nañ la ko bu muy juddu mën naa am sax yógoo mu bu ba toll ni mu toll ba kenn ku nekk am ci xemamteef yàlla bàyyi ñëpp dénk la ko yow kon tamit am na taxawaay ba war a taxaw ci moom cër boobu yàlla jox ko nag ba mu dem ba ëpp ci ndigal ay way juróom moo tax nga war a xam ne loolu lu suñu borom tëral la kon yow muy jigéen la suñu borom waxoon rek ba bësër rek fexeel ba sa bëgg di gënd yokk sa tef da nga yow muy góor gi sa yërmande di gën bi yokk saa su nekk rek nii daal su ngeen ko àndee ah, yàlla mën na si ma neen defal tawféex ba ëllëg ngeen xippee ji aljana yàlla na ko yàlla def kon fii lañ koy yemale dëngre ñu bàyyi xel si yeneen topp insha allah nii lañ ko bëgg a defee rek ansa ah, asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum sama gars yi daleen ak jàmm ci Sope Farokh TV ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné bu leen fàtte bés cloche notification bi ngeen ngeen mën a jot bépp vidéo boo xam ne dañ ko dugal fii ci biir réew mi ak bitim réew jërë ngeen